rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiallahu an sahabati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen baal di ñaan yàlla boole ñu jéggal Eh, di leen ndokkeel ci fan yu tedd yii di fani alquran di ñaan yàlla mu nangul ñu jotaay bi ñuy toog di nafarlante téere bi yàlla bi te yàlla disalee ko suñuy misaanu xasanaat lépp lu fay tàbbi ci ay rëcc ci yàlla yàlla boole ñu ko jéggal <clears throat> ñoo ngi woon ci suuratul Araaf ca laayey ñeen fukk ak juróom-ñaar wa iza surifat absaaruhum sun boroom di wax ni auzu billahi min asheytaan rajim sun boroom naan ñoom ñi nga xamante ni ñooy waa laaraaf jàngoon nañu ni ñi nga xamante ni seen jëf yu baax moo ëpp ñu nekk di ay jullit ñoom ñoo ñe ñooy dugg aljana ñi nga xamante ni itam gëmuñu yàlla seen jëf yu bon daldi wat ñoom ñooy dugg safara waaye ñi nga xamante ni seen jëf yu baax ak seen jëf yu bon yamoona wala def nañu lu baax loo xamante ni ku def lu baax loole doo dugg safara waaye def nañ lu bon loo xam ne ku def lu bon loolee doo dugg aljana ñoom am na fu ñuy nekk foofee ñu nekk nag moo tudd laaraaf mooy miiri aljana moo nekk ci diggante aljana ak safara su ko defee nag ñoom yàlla may na leen dañuy jàkkarloo ak waa safara di xam lañuy nekk ci ay metit lañuy ñuy ci mbugal seen kanam ya na muy lakkee na muy ñuulee waaye itam bu ñu wëlbatikoo dañuy gis waa aljana nañu nekkee ci xéewal ga ñu nekkee fa tabarakallahu ak teraanga ya leen yàlla di teral foofu ak xéewalam ya nga xamante ne moom lay dotti ca ñoom su ko defee nag ñoom ñu nekk di xeemeem la nga xamante ni moom la waa aljana nekkee ndax bëgg nañoo dugg aljana waaye itam ñu ngay muslu ak di ragal la waa safara nekkee ndax ñi ngi ragal a dugg safara ñu wax ni kon nag laaraaf moom benn barab la boo xamante ne diggante bu gàtt lay jeex ndax bu bu ñu nekkee ci diggante boobu ba jàkkaarloo waxtaan yi yépp am rekk sun borom dana leen dugg leen aljana jéggal naa leen kon laaraaf nekkul luy continuer aljana day continuer safara dafay continuer waaye laaraaf dafay jeex loolu nag moom la xaakim wax jëlee ko ci xusayfa wax naa ko démb moo tax bur bi ne wa isa surifat njéem wal ba déef na absaaruhum seen gis ya ndax jamono boobu duutu jamono booy tànnal sa bopp li ngay def ñoom duñu xool dañuy wëlbati seeni gis waaye du ñoom ñooy wëlbatiku di gis wisa surifat ñeem wëlbateef na absaaruhum seen gis ya ñoom waa laaraaf tilqaa ashaabi néeri jëmale ko ca wàlli safara ñoñu safara ñu gis leen ak lañu ñu nekkee xaalu ñu ni rabbana yaa rabbana yow suñu borom ewaay laa tajal naa yàlla boo mu jël ñu ñu dugg safara ma alxaw mi ànd ak nit ñi addalimina ña di way tooñ ñi nga xam ne tooñ nañu seen bopp yàlla yebal ab yonent mu ñëw leeralal la nañ la mu bëgg leeralal la nañ ñi la mu tere yow nga ni fa ñukk la mu bëgg dem ca la mu tere ëllëg lu xew ci yow yaa tooñ sa bopp wa maa zalamnaahum walakin kaanu anfusahum yazlimuun maal qawmi zaalimiina ñoom de tooñkat lañu ndax tooñ sa boroom doonte nag musiba ba ci yow lay wàcc waaye kila bind bi mu lay bind bokkaalewul ak kenn ba di la wërsëgal bokkalewu ca kenn di la dundal bokkaalewu ca kenn nga seet ca la mu bind bokkaale ko ca jox ko ca cër bu moom moom moom yàlla bu boobaa tooñ nga inna shirka la zulmun azimun kon nag fa la tooñ mën a yem ma al qawmi zalimin sun borom nee na waa laaraf daañu wax loolu buñ gisee waa safara su ko defee nag waa laaraaf bu ñu leen gisee ndax dañu yem ci xool leen kese am na lu ñuy àddu dañ ca gis ay nit ñu ñu xam ci biir safara ñu xamoon leen ñuy boroomi daraja amoon mbooloo amoon alal amoon kilifteef ci àdduna ñu ni leen waa yéen seen alal ja ak seen dajaloo bi seen mbooloo ma ak seen tiitaru ba ana lu mu leen jariñ tey jii gannaaw bi ngeen duggee safara ba pare moo tax mu ni wanaa daan noo daal di woo asxaabu laaraaf yi waa laaraaf rijaalan aw nit ñoo xamante ne ci waa safara lañu bokk ñoo xamante ne yaarifuunahum xàmmee nañu leen bi siimeehum ci seeni màndarga màndarga ga ñu nekkee goo xamante ne ma nga ñuul kuk ci lakk ak i métit ñu xàmme leen qaalu ñu ni leen waaye yéen maa maa ji mën na nekk istifhamiya waaye itam mën na nekk naafiya bu mu ci doon maanaam yi dafay rafet maa axna ana lan la jëriñ ankum ba man leen a jañal ngeen bañ a dugg safara jam ukum jam ukum seen mbooloo jam ukum seen dajaloo ba jam ukum la ngeen daan dajale ci alal ak ci mbooloo ak seenu bëri wama ak la nga xamante ne kuntum nekkoon ngeen biru na doon ko sàkkoo réylu baaru wastikbaarukum maa ji nekk masdariya nga taawil ko ak jumla ba def ko masdar la leen taxoon a réylu ba jom ba gëm ana tey lan la leen a jëriñ kon kay maa jam maa maa maa ax naa jëriñul ba mën a jañal an kum walif leen ngeen dugg safara jam ukum seen dajaloo boobu ak seen dajale alal ja ak seen bëriga wa ma kuntum tastakbiruna ak réylu ga ngeen doon réylu ba jombale seen bopp gëm tey de jëriñu leen dara su ko defee moment boobu yàlla day jël écran bi nga xamante ne waa aljana li ñu nekkee waa safara gis ko waa safara li ñu nekkee waa aljana gis ko waa laaraaf ñi ci digg bi ku ci ne di gis aljana di gis safara su ko defee dina tax ña nekk ca mbég ma mu leer leen ni lii duutu jeex abadan waaye ña nekk ci naqar itam mu leer leen ni duutu jeex abadan bu boobaa ña nekk ca mettit mettit ba day gën a metti waaye ña nekk ca mbég mbég ma day gën a neex su ko defee waa laaraaf ne leen yéen ñii ana ñi ngeen doon xeeb ana walid ku mel ne abu jahlin ana ñi nga xamante ne ak ku mel ne abu lahab ana ñi nga xamante ne ñoom ngeen doon xeeb ku mel ne bilaal ku mel ne suhaybu ana ñi ngeen doon mbugal ku mel ne ammaar su ko defee ñu wax leen ne leen ahaulaa'i xanaa du ñii allazina mooy ñi nga xamante ne ak aqsamtum dëkkee woon ngeen a giñ di giñ ci laata di giñ ci uzza ni ñoom de laa yanaaluhum du dikkalat leen allahu yàlla du jox leen allahu yàlla bi rahmatin ak yërmande yàlla du leen jox benn ko du leen jox benn tedd nga du leen jox benn xéewal àllaaxira ndax yéen mbir mi da ngeen koo xiyaasoon ci àdduna ne ñi am teraanga àdduna ëllëg rek ñoom rek ñooy am teraanga yéen a leen doon xeeb ci àdduna tey jii ñu ngi nii aljana kon ñii ngeen doon xeeb tey jii ñu ngi ci xéewal udxulul jannata laa xawfun aleykum wala antum taxzanuun mufassir bi nee na ñoom ñooñu ngeen doon xaw qad qiila lahum udxulu tàbbi leen aljannata ajjana laa xawfun déetug ragal aleykum ñeel ci yéen wala antum déet yéen taxzanuun a ngeen di jàq ragal ca la nga jublu jàq ca la nga weesu suñu boroom nee na diggante boobu nag diggante bu tiis la ndax ña ca waa safara dinañ gis ñenn ñu ñuñ xam ca aljana amaana sax seeni wayjur la de amaana sax seeni doom la lañ amaana sax seeni boroom kër lañ amaana sax seeni soxna lañu waaye ña ngay sàkk ci ñoom ndax taruk mar ak mettit bi ñu nekkee benn guuxu ndox bu ñu naan man ko seral seen xol wala benn ñam waaye duñ ko am moo tax mu ne wanaadaa daldi woo asxaabu neeri waa safara asxaabal jannati waa aljana ne leen ewaay eh an afidu ewaay eh bëbbal leen ewaay eh sotti leen ewaay walla leen alaynaa ci ñun minal maa lenn ci ndox lu tukkee ndox aw mimma razaqakumullah léegi nag dañu wax ni aw jooju du daw daw waayam ndaxte inna allaha xaramahuma damiruhuma jaa tax wala boog aw mim wa an afiidu alayna min almaai wa mimma ak ca tukkee ca lenn la nga xamante ne razaqakum wërsëgal na leen ko allahu buur yàlla ci ñam hmm. qaalu waa aljana tontu leen leen mbir mi nekkul ci suñuy coobaree bopp inna allaha wér nekk ni yàlla xaramahuma moo ko xañ moo xañ ndox aku ñam alal kéefirina ci yéeféer yi <coughs> mooy ñan sun borom na allazina mooy ña nga xamante ne ittaxasu jàppe nañu diinahum seen diine lahwan wa laiban lahu day firi po day firi po waaye laib mooy marxalam po mooy état bu fo bi nit di njëkk a jaar mooy bi xale di def allahu mooy po mi yàlla di dumaa nit ndax ñaare lëhu mu kallaf moo koy def waaye li ëpp laayib xale moo koy def xam nga nit bu jëlee kàttanam di ko def ci dara dafay bëgg mu jur dara bu jëlee temps di ko def ci dara dafay bëgg mu jur dara ñoo maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee mbuur di jàng alquran ca géej ga lañ daan sangoo nag ak donga léegi léegi day xaw a metti alxamis ba alxamis la ñuy te ca géej ga la sangoo ji dañ daan jël suuf si boole ndox mi di def tabax tabax yooyu da toq muy tabax tabax tabax ba fa tabaarakallaa ba mu jóg dangay ngay jékki-jékki rek jaar ca dëgg ca mu màbb nga daw plongé ci géej gi da gis xale boo xamante ne day defar yëkkati lu defar benn oto findi feeram ba mu baax mu jékki-jékki joggi ko dem <clears throat> mooy po mu amul objectif bokkul ak po moo xamante ne boroom ma nga cay fayu ay nangam ak nangam lu ne ma ko cay am moo xam day dox di toogaanu fa muy rëddee ak fa muy bindee moo xam lu mu manti doon rek mooy po moo xamante ni am na lu ca boroom jublu lu mu cay am ak po moo xamante ni moom moom bànneex bi rek la ci am waaye jubluwu ci leneen luy continuer di sax loolu mooy allaib ak allahu suñ boroom nee na ñoom seen diine loolu lañ ko jàppee woon wa xarathum naxoon leen alxayaatu dund ga addunyaa gu jegen jee jeex addunyaa ju kees ji ah, ñoom loolu lañu jàppoon dañoo jàppoon ni diine du dara dañoo jàppoon ni àdduna gi du dara mooy bu jeexee rekk jeex na fal yow ma moo tax tey yowmal qiyaam nan saahum dañ leen di bàyyi ca safara ndax fàtte mooy waral bàyyi kama nasu comme ni ñu bàyyee woon bàyyiwuñ xel ci jëfandiku bàyyi liqaa yawmihim dajeeg bis seen xaasa bii mooy jëfuñu woon loo xamante ne dana leen jariñ tey kon mbokk yi bis boobu ku ci ne bi ngay dund yàlla bàyyee na la sa dundiin foofa noo ko fiy waajalee bu dee dund gu neex yaa ko fiy waajal ci góor góorlu jëf jëf yu baax yu dëppook diine te ngëm yàlla lal ko bu dee nag dangaa bëgg dund safaan ba tey waajal nga ko ndax itam safara ma nga fa ak ay mettitam waaye itam aljana bàyyi leen xel ne ay étape ay étape yi la ay darajaat la dund goo fa dund gu neex amaana noo doon góorgóorlu ci àdduna ci góor góorlu ci yu baax mën nga dund gu ko dàq foofu kon nag ku ci ne rek yaa ciy góorlu kon ñii li leen dal sun borom nee na lenn rekk la mooy dañoo jëful woon ci àdduna luñ mën a amee teraanga alaaxira moo tax fal yow ma tey nan saahum daañ leen bàyyi ci safara duñ leen dabaatal benn yërmande bàyyi leen fa kama nasu liqaa yow hada parce que tey jii dañ kaa bàyyiwul woon xel meloon ne ku ko fàtte moo tax wa maakaanu ak la nga xamante nekkoon nañu na doon ko weddi bi ayatina sunu laaya yi sunu alquran laa yi nga xamante ne moo làmb ay santaane ak i tere sunu borom nee na wala qad ji'naahum ñoom waa makk dëgg andil naa leen bi kitaabin ab téere muy alquran boo xamante ne fassalnaahu fram fàcce nañu ko leeral ko indi axbaar yi indi waad yi indi waid yi ah xalaalun xaraamun muxkamun mutashaabihu bashirun nadirun qissatun izzatun mathalu yépp ngi ci lima ma daganal lépp ngi ci li ma teree ngi ci loo xamante ne muxkam lu leer nañ ñi ñu war ko jëfandikoo mi ngi ci mu mutashabih mi ngi ci luy bégle ci aljana information buy bégal nit kiy jëf lu baax ndax mu gën a góor góorgóorlu mi ngi ci luy xupp nit kiy jëf safaan ngir mu tegg tànkam mi ngi ci xissa yi yonent yi seeni jaaruwaay ak fa ñu mujj nañ leen doon lore ak ndam la mujj ci ñoom ñi leen doon weddi ak pouvoir ba ñu amoon ak fa ñu mujj ci mbugal lépp ngi ci waare mi ngi ci waaye itam ay misaal yu leer naññ ak i léeb mi ngi ci fassalnaahu te yàlla nee na lool lépp maa ko def ala ilmin xaala kaw ni lépp ma teg ko ci xam gu wóor ay aalimiina bi ma fas bi maa fussila fiihi fassalnaahu faram fàcc nañu ko ala ilmin ci xam mbirum nekk mu nekk hudan dik njub majaas la alaaqa bi sababiya la day sabab njub di gindi xamante rahmatan ak nekk yërmande li qawmi nit ña nga xamante ne na nangu dañoo gëm yàlla alquran day ñëw faj la waaye itam vacciné la nga bañ a feebar hudan garab gaangoog mu gindi la yow mi nekkoon ci lu yoonu cànkute waaye su la gindee ba pare itam li tax nga mën a continuer ci gindiku gi mu ngi ci biir alquran moo tax wa rahmatan yërmande la itam li xamee ñeel nit ñi nga xamante ni yuminoona nangu dañoo gëm yàlla yaa rasulallah maa ngi lay xamal ni sa dundin bi ngay dund ak waa Makka metti na loraange yi ñu teg ci sa kaw lu dul ne dama la yónni nga leen di jottali sama kàddu xam naa ne metti na waaye ñoom buñ jógewu teggiwul seen tànk fii ñu ko teg lenn dong la ñuy xaar mooy tëkk yooyu ñu leen tëkk ak si wàcc seen kaw moo tax hal yanzuruna ñoom de xaaru illaa taawila hal ji istifham bi illaa ji ma lay wan ni naa fi yàlla hal yanzuruna ñoom de déet ñuy xaaru déet ñuy muñandiku illaa la illaa aqibata ma fiihi lu dul mujjantalu li nga xamante ne moom lañ leen koo ci téere bi yow ma bis ba nga xamante ni yaa yaati dikk na taawiluhu ak mu jëm moo xam yowmal qiyaam la wala cag faatu kerode rëccu dina am ndax yaqulu dana wax allazina ña nga xamante ni nasuuhu bàyyi woon nañu jëfandikoo téere bi mel ne ku ko fàtte min qablu cëg njëkk lànk bañ a gëm ñoom de bu boobaa daañu reconnaître ngëm nga waaye du jariñ xajjaat dëgg dikkaloon na rusul naa sunu euh, ndawi borom bil xaq dëgg andiloon nañu dëgg fahal ñun ñoo ko toppul woon e waaye tey fahal lana ndax ñeel danañu ñeel min shufaa way ràmm fa yashfau ba ñu mën a sobe ràmmul lana ñeel ñu aw hmm, aw wala bokk ndax nu ràddu des nañu mën a delloowaat ci àdduna doonte benn bis la fa naamala ñu jëf gayra lazi lu wuuteeg la nga xamante ni kun naa nekkoon nañu naamal doon ko jëf ñunkat dañ daan bokk ak yàlla yàlla suñ delloo nu waxidullaha ñun kat dañ daan juuyoo ak ndigalal yonent yi suñ delloo mën a dëppoo ak ndigalal yonent yi waaye booba rëccu booba du jamonoom ndax jamono boobu jamono fay jëf la suñ borom ne xada xasiru dëgg perte nañu an anfusahum seen bopp ndax ñoom ñépp mujj nañ jëm ci alkande wa la te fàddu na wa la ne na mes sànku anhum walif leen maa la nga xamante ne kaanoo nekkoon nañ na doon ko forte doon ko fent ci ak bokkaale jàpp ni ëllëg dana leen jariñ dara ba ma leen a ci li nga xamante ne mooy bàyyi ko fa yàlla ci xeeti mbugal tey de gisuñu ko inna rabbakum allahu lazi xalaqa samawati wal arda fi ayamin dafa am lu ñu tuddee ar rububiya ak lu ñu tuddee uluhiya ar rububiya juuya amu ci ndax lépp xéewal rekk mooy yàlla di wàcce ci doomu aadama li muy jariñoo ndax yàlla dafa bind asamaan ak suuf def ko muy place bu muy waajalee xalifaam ci suuf inni jaa'ilun fi ardi xalifa lépp lu doomu aadama bi war a soxla moom mu nekk xalifa yàlla ci kaw suuf yàlla waajalal ko ko fa ba mu mat sëkk lépp lu mu war a soxla la buy soxla jant fekk na mi ngi fi weer fekk na mi ngi fi mu war a noyyi ngelaw mi ngi fi pour noppalu ndax coono yi muy àndal lépp mi ngi fi buur bi ne inna rabbakum naka seen boroom bi nga xamante ne moom moom ar-rububiya kookee mooy allah mooy ki nga xamante ne itam moo leen di togg ay jëf ne leen def leen ak bàyyi leen muy uluhiya bi inna rabbakum wér na ne seen boroom ki bind li ki ngeen amul wuute ñi moom moo bind asamaan ak suuf kookoy itam allah mooy allah inna rabbakum nekk seen boroom allah mooy allah allazi ba nga xamante ne xalaqa moo bind asamawaati asamaan yi wal arda ak suuf fii sittati ayaamin ci diiru juróom benni fan ci kemam moom nakaa def kun fayakun kun ci benn baat waaye def ni mufassir bi nee na daf ñuy xamal ndànk ne dara xëyul sotti dara xëyul sotti daf ñuy xamal itam ni gaawtu baaxul ndax gaawtu boo gis seytaane am na ca wàll ñu ni ah xanaa ba mu des yii yi seytaane amul wàll ci gaawtu mooy tuub mooy gaaw a tuub tuub moom lu mu gën a gaaw moo ca gën comme xamoo kañ nga fiy jóge moo tax boobu gaaw boobu moom wàllu yàlla la seytaane amul ca wàll yore bor man ko fay dig ba jot gaaw a fay gaawtu boobu itam du bàyyi ko ci seytaane kooku moom ci wàllu yàlla la bokk ci wàllu yàlla yàllaa ci am wàll am gan mu ne salaamaaleykum nga gaawtu ci teral ko teraanga googu itam loolu du wàllu seytaane wàllu yàlla la gaawtu googu seytaane amu ca wàll boo demee ci téere bu ñu naan muayinu talamis sharha risala la téere bu am solo sharha bu am solo la bu neex a jàngale gis naa ca mu ni bokk na ci alal yi yàlla dul régler yowmal qiyaam mooy alal ji nga terale gan ndax xéewal ga ak tuyaaba ja nekk ca teral gan moo tax du vérifier fu mu jóge beneen bi bokk na ci gaawtu yu baax mooy soo amee xale lu jigéen nga gis ku ko bëgg nga gaaw ko maye gaawtu boobu itam ci wàllu yàlla la bokk su ko defee nag yooyu ci gaawtu yi nga xamante ni seytaane amu ca wàll bur bi ne su mastawa topp mu yemoo alal arshi ca arasham nga ñëw na juróom-ñaari yoon ci alquran nag ah su ko defee nag loolee dafa bokk ci li nga xamante ni dañ ci ñi ci indi di ci wax di ëcc daanaka dafa nekk loo xam ne boo ko toppee du jeex ba tax na soo bëggee noppalu rek ngay wax ni daal yemoo gi moom nekkul lu ñu réere xamees na ko waaye naka la na kenn xamu ko dañ ko ko bàyyee moom subhanahu wa taala laajte ko itam bidaa la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yónni pour mu leeralal ñu li ci téere bi te benn saxaaba mosu ko laaj pour mu leeral ko te yonent bi mosu ko leeral kenn kon nag yàlla xam naka la nekkee su mastawa ala al xam naka la nekkee moom yàlla moomee yughshi muy muur al layla guddi annahaara ci bëccëg naka noonu lay muuree itam annahaara bëccëg al layla ci guddi ah yukawiru leyla ala nahaari wa yukawiru nahaara ala leyli jël mbalaanum bëccëg mu muur guddi bëccëg ñëw jël mbalaanum guddi mu muur bëccëg guddi ñëw bu ci ne moom yàlla fa tabaarakallaahu daanaka fànnu xam-xam la bu dul jeex ba tax na yatlubuhu guddi gi buy sàkku bëccëg bi da koy sàkku pour gaaw jant bi fenk bëccëg ñëw naka noonu guddi itam noonu lay sàkk dabe dawi wutali bëccëg pour guddi ñëw ku ci ne yaa ngi dàq sa moroom kullun fii falakin yasbaxuuna moom jant beeg weer bi la shamsu yanbagi laha an tudrika alqamara wala leylu saabiqu nnahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun yatlubu xasiisan ak sàkku gu gaaw ak sàkku gu gaaw wa shamsa ak weer wi wal qamara wa shamsa jant bi wal qamara ak weer yi wa nujuuma ak biddéew yi ñoom ñépp dañ ka atif ci ala samaawaati bu fekkee dañ kaa rafaa day nekk mubtadaa kon boo nee wa shamsu jant bi nga ne haa wal xamar ak weer yi wan nu joom ak biddéew ñoom ñépp musaxaraatun ngay wax waaye boo nee wa shamsa wal qamara wa nujuma musaxaraatin xaala kawnihinna muy lu ñu tàggat yàlla moo ko tàggat bi amrihi ci kattanam moom subhaanahu wa daray doomu aadama nekku ci xam naa nit de mënut a woote ak moom ak moom ak moom wala ku bind dara wala ku moom dara ba joxeñ jant bi na maa ko fi def wala weer wi wala suuf si wala guddi gi walla bëccëg gi loolee moom ñépp xam nañu mbir yàlla masalan walillaahi masalul ala dafa am ku dem ci àll bi moom dox na dox na ba sonn xiif na mar na tëdd di xaar dee naka mu yeewu fekk ci kanamam benn palaat boo xamante ni lépp lu soxla ci lekk mi ngi ci lu soxla ci naan mi ngi ci lépp ngi ci li muy njëkk a xalaat mooy kan moo ko fi indi ndax moom xam na ne indiwu ko fi kon yow mi ñëw ci àdduna xool yii yépp xam nga ni ko fi indi kenn la muy subhaanahu te nag bu dara tegee kenn wóotewul ne maa moom ki ni maa moom maa bind kookee moom kat moo ko moom te suñ borom nee na maa bind maa moom te faram-fàcce na ko yépp mu saxaraatin muy lu tàggat bi amrihi moo tax ala lahul xalqu wal amru ala eewaawee lahu ñeel na yàlla subhaanahu wa alxalqu amal gi wal amru ak saytu mbir yi moom yàlla moo moo amal mooy saytu su ko defee lépp moo ko amal jële ko ci ñàkk waaye itam ni mbir yi doxee lépp moo ko saytu moom subhaanahu wa taala ñeel na alaa eewaawee lahoo ñeel na yàlla alxalqu lu feeñ li muy almulk wal amru ak malakoot alaa lahoo ñeel na ko alxalqu alchahaada wal amru ak xaybu alaa lahoo ñeel na ko alxalqu alzaahir wal amru ak baatin loo xam ak loo xamul loo gis ak loo gisul lépp sun borom nee na ma mi sama loxo man kese la ñeel kon li tax mu jiital jaar ak ma juruur ji mooy kenn amu ci accès ku dul subhanahu moom rek moo ko moom alaa lahoo ñeel na ko moom rek képp kot alxalqu bind gi wala amru ak saytu mbir yi moo tax tabaarakallahu rabbul alamin rek ci tege tabaaraka mag na tabaaraka barkeel na allahu bur yàlla rabbul alamina mi nga xamante ne mooy borom bindeef yépp moo ko moom ki moom lépp nag ne la may amal lépp te may saytu lépp su la ñaan ma sa xel war na dal kon nag uddu toroxlu leen ñaan rabbakum seen borom ñaan leen seen borom te darruan mbirum nekkam ngeen di toroxlu bu leen ko ñaan ne lii naa ko am mais ñaan gi li koy lal mooy na nekk ak jaamu yàlla ak toroxlu wane sa ñàkk ak sa tële toroxlu ci kanamam wa xufyatan at yelu mooy yelu ya mën a nekk masdar comme ragal mën a nekk masdar comme nëbb mooy li ngay ñaan na ko wax ndànk nëbb ko ndax moo gën a néew ci ngistal moo tax ñu teqale ko ñaar ne bu dee yow kese na nga ñaan ndànk lu aju ci yow ñaanal ndànk bu dee ci mbooloo nga ñaan ci kaw ndax ñu wax amiin mën a ànd ak yow ñaan nga waaye gis nga te darru an wa xufiya da ngay gis ni doy na waar daal dangay gis koo xamante ni julli na ba pare am na ñum dendal ñoom itam ñu ngi ñaan moom ma ngay ñaan ca kaw rek su ko defee ñee dend ak moom di ñaan moom kenn du xam lu xew amaana koo xamante ni sax dafa debe julli gi di fa di di di fay li ko dese ci julli ñaan ga ngay ñaan ci kaw dina tax moom duutu mën a teewlu jax-jaxal ko te ah tadarruan wa xufiya innahu naka yàlla wér naka moom laa yuhibbu du yoolal al mu'tadina way jalgati ña jalgati gi nag dafa bëri ñun nag moom ay sénégalais lañu sénégalais moom lu mu def rek boole ci aadam fa tabaarakallaahu da ko gis ci yenn jotaay yi ñaan yi ñu ni nañu def ñaan moo xam dañoo jàng kaamil ba pare nañ nañu def xat mu ngir ñaan moo xam ne ñee dañoo géew seen wasifa pare nañ nañu ñaan moo xam ñeneen itam ñu dajaloo di ñaan waaye eh, kay ñaan toppaayu neexaayu na muy neexalee baatam ngir ñu ni eskay ca ñaan nga dina tax te darru an wa xufee du ca am da gis kuy jaayu ci ñaan du baat yamu ya ya ëmb maanaa moo koy jaayuloo waaye baatu kii ñaan moo koy jaayuloo ñaan tadarru la wa xufiya innahu la yuhibbu almu'tadina sun borom nee na wala tufsidu da ngeen a ñëw fekk ma defar lépp man yàlla ci suuf kon nag bu leen yàq fekk yonent yi yàlla yebal leen an jox leen ay téere ñu doxal ko sant ko aw nit ñu doxal ko lépp baax rikk wala tusidu bu leen yàq fil ardi ci suuf ci ak bokkaale ak xeeti mooy yàlla baada islaayiha gannaaw ak defaram ak yéwénalam bi baasi rusul wad'u ni ngeen di ñaan yàlla wad'uuhu ñaan leen ko xaw fan mbirum nekk ngeen di ragal sifaat al jalaliya yi mu melokaanoo wa tamaan mbirum nekkam ngeen di xeemeem sifaat aljamaliya yi mu làmbool ndax yàlla ni mu tuddee rahman tuddee ko razaq muy melokaan ci moom tuddee ko rahim tuddee ko latif ah tuddee ko basitu tuddee ko muti noonu itam la tuddee door noonu la tuddee mumit noonu la tuddee muksit noonu la tuddee maanea yii di sifaat aljalaliya yii di sifaat aljamaliya te booy ñaan nag bàyyil xel ñaar yooyu su ko defee pour nga mën a équilibré del ànd ak ragal ànd ak yaakaar tadarruan wa tamaan mooy xawfan wa tamaan mooy ñaari laaf yooyu rek mooy laafu ndeyjoor bi nekk yaakaar gu mat sëkk laafu càmmoñ bi nekk ragal gu ma sëkk ndax yàlla yépp la melokaanoo yàlla nim nekkee muiz noonu la nekkee muzil ni mu nekkee muxi noonu la nekkee muni mumit ni mu nekkee baasitu noonu itam la nekkee maaniaw ni mu nekkee naafia noonu itam la nekkee door xawfan wa tamaan inna rahmatallahi naka yërmande yàlla qaribun min al muhsinin lu jege la way rafetal ña mbokk yi laaya boobu laaya bu yéeme la boo xamante ni boroom xam-xam yi wax nañ ci lu bëree bëree bëri ndax comme alquran dafa wàcc ci làkku arab ñoom dañuy jël arab bi di xool nekkul ni euh, li ñuy jàng ci xam-xam yi ci arab mooy corriger alquran waaye dañuy xool alquran ji moom mooy layal loola inna rahmatallahi waxul qaribatun min al su ko defee wax nañ ci wax yu bëree bari waaye boo jëlee bi ci gën a gàtt rek jëlal ñaar yi ci gën a gàtt benn bi moo di idaafa allahu bi allahu qarib ba tax na qarib bi mi ngi ko jëlee ca mudaafu ilayhi bi ci allah wala boog nga ne failun bi maanaam mafaul fail boo xam ne bu maanaam mafuul la yastawi fii al muzakkar wal muannas inna rahmatallahi qaribun lu ñu jegeel la nekkul dafa jege mais lu ñu jegeel la kan lañ ko jegeel mooy aj rafetal kon ku ci ne yow yaay tànn distance bi ngay am ak yërmande yàlla loo toll ci rafetal rek yërmande yàlla gën laay jege noonu ndax inna rahmatallahi naka yërmaande yàlla xaribun lu ñu jegele minal muhsinin way rafetal ña ku ci ne na ngay toppee yàlla ak na ngay rafetale sa diggante sa borom rek noonu la ah yërmaande yàlla di la jege. wa huwa moom yàlla allazi mooy buur ba nga xamante ne yursilu mooy yebal arriyaaxa ngelaw yi foo ko gis yërmaande la foo gis ngelaw mu nekk singulier mufrad ci alquran mbugal la waaye foo gisee mu nekk pluriel nekk jamu xéewal la yursilu yebal arriyaaxa ngelaw yi busharan bushran jam u bashir ñuy woy bégle bayna yaday rahmatihi la jiitu yërmandeem ga laala moom tawa avant taw di ñëw nga jékki-jékki hmm? jàng nañ nusuran jàng nañ busuran jàng nañ nasuran jàng nañu bashiran yooyu yépp ay kii la busuran di way bégle nusuran di way tasaaroo ngelaw di way tasaaroo ah di way tasaaroo bayna yaday rahmatihi la jiitu taw bi ñëw nee jàng nañu ko busuran ah bur bi nee na xatta isa aqallat mooy gaaya ca ngelaw la ba mu yenu saxaaban aw niir siqaalan yu duway diis gann ak ndox di dem rekk muy xiin suqnaahu ñu nàndal ñu sotti niir woowee mu def ko iltifaat anil xayba li baladin ci dëkk li baladin ci suuf mayitin bu bekkoor mu daal di fay taw mooy foo xamante ni amul benn gàncax maral nañu sun borom nee na fa anzal naa ñu wàccee bihi ca dëkk boobee bihi ca suuf soosee almaa a taw ma taw ba naka mu daal taw rek ba sëwét ñetti fan rekk nga gis mu commencé verte fa axraj naa ñu génnee bihi ca sababu taw ba ca mbóoritum bàq ma min kulli samarati tukkee ci bépp xeeti meññit mu daal di naat fa tabaarakallaahu lu ne am ca sababu ndox moomee nga gis ni sun borom nee na kazalika naka noonu ma génnee jiw yooyu ak gàncax yooyu ba mu naat nuxriju lay génnee almawta way faatu nit ci seeni bàmmeel misaal mi yomb na de avant muy taw yow mi nekk ci àll bi pepp yooyu jiw yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne bu tawee muy sax muy nekk mboot meeg njëmb meeg yu ma xamul fan la jiw wa nekk xamoo ko woon suñ borom nee na doomu aadama yi itam bu ñu faatoo ba see ci biir suuf na may génne na ma fepp yooyu réeréewul noonu la ma seen jëmm yi dul réerée na ma génnee yee noonu laa leen di génnee dekkal leen sama kanam yawmal qiyaama buur bi nee na wal baladu suuf ab tayibu bu teey bu baax bu tooyee yaxruju dafay génn nabaatuhu gàncaxam rafet bi izni rabbihi ci nammeelu boromam ni nga xamante ne ndox noonu lay dundalee suuf wax yu boobu nga xamante ne mooy wàcc ci bàyyi ko ci yàlla di ñëw ci yonent noonu itam lay dundalee xol kon bépp jullit boo xamante ne dégg nga alquran ni ndox di dundalee suuf noonu la wax yu boobu alquran jooju di dundalee sa xol ba meññ mooy say jëf say cër di ko jëfe waaye wallazi suuf sa nga xamante ne xabu sa dafa bon nekkul suuf su baax laa yaxaruju du génn gàncaxam illaa nakki dandere ci coona mu ñi nga xamante ni itam seen istiadaat ci seen xol baaxul wax yu bu dikkee wala alquran bi ñëw ci ñoom ndigal yaag tere ya daanaka du jeexital ci ñoom lu bëri suñ borom nee na kazalika naka noonu ñu leeree leeralee lii nu fa sarrifu la ñuy faram-fàccee di leeral allah yaati yi li qawmi nit ñi nga xamante ne na dañu sant yàlla ba mën a gëm yàlla nag lii la wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mi ngi koy bëgg limal ay nettali ay yonent fa ñu jaaroon ak seenu nit ak fan lañu mujj ñoom yonent ya waaye itam seenu nit ana fan la ñu mujj pour dalal xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñi lay weddi fa ñu weddi woon yonent yee mujj rek foofu la ñuy mujj waaye ñi la topp itam ña toppoon yonent yee fa ñu mujj lañu mujj waaye yonent bu ma yónni itam nañ yonent yooyu réussir woon <coughs> na nga gëm ni noon ngay réussir itam incha allahu taala mu njëkk indi yonent yàlla nuux ndax mooy yonent bi ñu njëkk yónni aw xeetam lànkal ko yàlla alak leen mooy yonent yàlla nooy mooy yonent bi njëkk yónni aw xeetam lànkal ko yàlla alak leen al alak aw xeet wu gàntu seenub yonent xeetu yonent yàlla noox moo ca njëkk kon moom la koy njëkk indil buur bi nee na laqad walaay teg dëgg boo déggee laam ak xat rek xamal ni xasam ñëw na waat ñëw na man yàlla maa ngi waat ci sama tedd nga ne qad arsalnaa dëgg yónni woon naa nuuxan yoon ca la nuux ilaa qawmi jëm ci nitam ña ba àggee fa qaala mu ni leen yaa qawmi yéen samaw nit ubudu wéetal leen allaha yàlla xam leen ni ma lakum dédd ñeel leen min ilahin lenn lu ñuy jaamu jaamu ga ci dëgg xayruhu ku dul moom maa ngi leen di xamal ni inni naka man kat ñi dafa xayruhu day nekk badal ca maxall ba ñu def gayrihi day nekk sifa ca ilaa bu ci ne jàng nañu ko inni naka man axaaf ragal naa tiitalat naa aleykum ci yéen tiitalat naa leen bu ngeen jaamoo lu dul yàlla azaba yamin mbugalu bis azimin bu màgg te danger mu yemal qiyaam foo fekk yonent bu dikkee nag bëgg nit ñi mu yóbbu leen ci njub ña nekkoon ci ndëngte loolee du leen arrangé rawaate na ña doon jariñu di kilifa ya moo tax xaal daal di koy wax almala u notable ya almalaku almala u al ashraaf min qawmihi ca nitam ña innaa naka ñun la naraaka nañu la gis nañu ni li ñu suñ xel jox moo di fii dalaa yaa ngi ci cànkute mu biinin guddi aji biir a dalal jins la làmb na dalaalaat yépp xaala yoon ci yàlla nu wax ne leen yaa qawmi ewaay eh yéen sama nit man de lay sa bii de di nekk ci man dalaalatun benn benn cànkute nekkul ci man mu indi mu indi doonte benn cànkute nekkul ci man walakin nii wante nekk man rasulu ndaw laa min rabbil alamina bu tukkee ci borom mbindeef ñi mu yónni ma ci yéen ngir ma gindi leen uballighukum daf ma yónni ngir ma jottali leen risaalaati rabbi samay yónneenti boroom waxul sama yónneentuk boroom ndax fekk na fi la ñëwoon ca yonte yàlla Idrissa la ñëwoon ci siis ak la ñëwoon ci maam aadama kon nag yooyu yëpp bu ko boolee ak li mu yor day nekk risaalaat uballighukum risalati rabbi wa ansahu may laa biire lakum ñeen leen yàggaay baa tax wa alamu maa ngi leen di xamal ni xam naa minallaahi lu tukkee fa yàlla maa loo xamante ne laa taalamun xamu leen ko kon nag bàyyi leen bokkaale bi ngeen di bokkaale ak yàlla man de laa biire naa leen nekkul ni li may wax mooy li ma xam lépp lu bàyyi ko fa yàlla te du li ma xam mooy xam-xam bépp ba nekk fa yàlla kon nag maa ngi leen di xupp ana naka lañ doxalee ak moom ñu weddi ko yaa rasulullah yaa ngi dégg mu ne waaw mu ne ko ñu weddi nuux yonte yàlla noox ne leen awa ajibtum an jaakum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum li yunzirakum wa li tattaqu wa laallakum turhamun ndax nit ña ñoom dañu jàpp ni seen moroomu doomu aadama mënut a xëy suba yeewu rek ne yàlla yónni na ma ndax jàpp nañu yàlla bu doon yónni ab malaaka lay yónni mu ni leen a ah, boo gisee alif waaw istifham ak waaw atif rek xamal ni amal am na luñ fa xasaf lu waaw gi atif moo tax a ah, moo ndax dangeen ngeen may weddi teg ca wa ajibtum ngeen teg ca di yéemu ni an jaakum ndax dikkalat na leen zikrun ak waar min rabbikum tukkee sa bor seen tukkee ci seen borom ala rajulin ci làmmiñu waa joo xam ni minkum mi ngi tukkee ci seenu xeet di seenu mbokk mu ñëw li yunzirakum ngir na xupp leen ak ca mbugalu yàlla bu nar a wàcc ci yéen bu ngeen gëmul wala tattaqu ak ngeen ragal yàlla wattandiku ay tereem ngir ragal ak mbugalam wala allakum ndax lee yéen turhamuna def yërëm leen inzaar bi mooy waral at taqwa bi at taqwa bi mooy waral ar rahmatu bi ndax gaayatu inzaar bi moo di ak taqwa moo tax li yunzirakum bi àgg wali tattaqu bu bu fekkee loolu am na wala allakum turhamun suñ borom nee na fa kazzabuhu ñu weddi ko ba ñu ko weddee ànd ak loraange ya ñu teg ci kawam diir ba de yàgg na ndax jege na juróom jege jege na junni at alquran wax na ne junni at yu manqué juróom fukki at juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk mu nekk di leen woo nekk di leen laabiire di baamu kàddu yi ci ñoom lépp ñu gàntal ko ba suñ boroom sant ko mu dem defar gaal ga ñu romb ko fa di ko sabote ba gaal ga sotti suñ boroom nee na mbugal ma ñëw ma wax asamaan wàcceel sam ndox ma wax suuf balalal sam ndox ma ne yonte yàlla nuux ñi la gëm woo leen ñu ànd ak yow dugg ci gaal gi ndax ku dugg ci gaal gi danga mucc moo tax suñ borom nee na fa anjaynaahuma musal ko wallazina ak gaañ nga xamante ne maahu àndoon nañu moom cag lab fil fulki ca gaal ga waaye wa agraq naa labal nañu allazina ña nga xamante ne kazzaba weddi woon nañu bi ayatina samay kéemaan yi tegtale sama kàttan ak sama kenn ca tuufaan ba innahum naka ñoom ñooñee lapp kaanu dañoo nekkoon xawman di aw nit amina hmm. al ama wala ama dañuy tuddee silmaxa ci bët ak silmaxa ci xol al ama mooy silmaxa xol ci basira comme al ama ni mu nekkee silmaxa ci bët sun borom ne ñoom dañoo nekkoon xawman amiin dañoo nekkoon ñoo xamante ñoo silmaxa silmaxa xol ba buñ gisee dëgg duñu ko nangu amiina anil xaq kooku kenn la ci yonent yi sun borom nee na wa arsalna wa wa ila aadin yebal nañu ci giiruk aad muy aad bu njëkk ba hmm, ndax ñoom ñoo ñëw gannaaw yonent yàlla nuux axaahum seenu mbokk ndaw lu tudd huudan huut xaala ba mu ñëwee moom itam lam leen wax moo di yaa qawmi ewaay yéen samaw nit wax naa leen ni dañ koy firee samaw nit rek mooy yemoo sama sama mbooloo sama mbooloo nag moo ci gën a jekk ndax xawmu mooy loo xamante ne ka kay wax ca xeetu ñami waxal la bokk ndax jinne ya itam bañ demee wa israfna ilayka nafra bi al jinni ba nga xamante ne ñoom ba ñuy demee di waar seen seen seen gaañal jinne ya dañ naan yaa xawma naa yaa xawma naa la ñu wax inna samina ajaban kon xawmu mooy mbooloo moo xam ne ki kay wax ca mbooloo moomu xeetu mbooloo ma la bokk yaa xawmu yéen sama mbooloo ubudu wéetal leen allaha bur yàlla bu leen ko bokkale kenn ndaxte maa lakum déddi ñeel leen min ilaahin benn buur min ilaahin lenn lu ñuy jaamu jaamu ko dégg dëgg xayruhu ku dul yàlla afala tattaquna ewaay ragal leen yàlla ragal leen ko ndax ngeen gëm ko xaala daal di wax almala'u mooy mbooloo mu tedd ma mooy mbooloo ma ña nga xamante ni ah yamla'uuna alquluuba mahabatan wal uyuuna hayba ña nga xam ne bu nee tëll bët yi fees dell ak tey xol yi itam ànd ak respect ci ñoom mooy notaabal ya allazina ña nga xamante ne kafara wedd nañu yàlla min mii ci nitam moom xóot ni ko innaa naka ñun la naraaka ñun dëgg yaa jàppee nañu la fii safahatin nga nekk ci réer ak dese parce que yow mii kat sa xel mi dafa téeyey kat waaw nan nga fiy fekkee ay xëram yoo xamante ni suñuy baay ak suñuy maam ak suñuy maamaat moom lañ doon jaamu nga ñëw bëgguñoo ñoo wàcc loo loolu di ñu jàppaloo koo xam ne gisuñu ko nga ne moom kese mooy yàlla ñun de dañ laa jàppee ab dof te wa naa naka ñun sax de gannaaw loolu la nazunnuka dañ laa njorte ne yow mii kat sa bët yi ak ni ngay xoolee nii ak li ngay wax minal kaasibiin yaa ngi bokk ci ñu dul wax dëgg lii nga wax dara amu ci lépp mi ngi koy nettali yonent bi qaala yonte yàlla huut ne leen yaa qawmi yéen sama mbooloo maa ngi leen di xamal ne li ngeen di wax ne dama nekk dese ak ci cànku teg réer lay sa bii de di nekk ci man safrahatun benn dese walakin nii wante naka man rasulu ndaw laa min rabbil alamin bu tukkee ci borom mbindeef nii daf ma yónni man kat uballighukum damay jottali leen damay jottali risaalaati rabbi sama yi yónnenti boroom ndax bàyyi leen xel ni am na yu mu fi fekkoon ci ay téere ak i yónnent ndax bu nuux fi la ko fekk bu idrisa fi la ko fekk bu siis fa la ko fekk bu maam aadama fa la ko fekk kon risalaati rabbi wa ana man nag maa leen di xamal ni naasixun aji laabire la lakum ñeel leen te aminun ku ñu wóolu la ci yónnent kon nag war ngeen a mën a nangu li nga xamante ni moom laa leen di sant nga gis na ca yont yàlla nuux jumla at yàlla def ndax muy atajaddud bi ndax dafa yàgg ci ñoom di leen ko ko sant waaye boo Huud yàggul moo tax mu andi jumla ismiya bi mu saxal ko ci ñoom rek naasixoon amin ñu daal di koy weddi dal di koy weddi nanguwuñu ni yàlla dina yónni doomu aadama rawatina ku bokk ci ñoom rawatina ku yaroo ci seen biir ñu xam ko jékki-jékki rek ne yàllaa ma yónni mun leen ah ndax da ngeen may weddi wa ajibtum teg ca ngeen di yéemu ni an jaakum ndax dikkalat na leen rek zikrun ak waar mi rabbikum tukkee seen borom ala rajulin ci làmmiñu waajoo xam ni minkum mi ngi bokk ci yéen mi ngi tukkee ci seen waxeet li yunzirakum ngir na xupp leen ragalloo leen mbugalu al ak alkande ku gëmul yàlla waskuru fàttaliku leen xéewal gi leen yàlla defal bi yàlla faagaagalee nit nuux yi ba ñoom ñépp ñu jeex seen suuf soosee ana ñan ñoo ko dëkke yéen is bi nga xamante ni jaalakum def na leen xulafaa ak ngeen di kilifa yi suuf min xaw qawmi nuuxin gannaaw nitu nuux ña wa zaadakum mu dolli leen moom yàlla fil xalq ci bind lu mu joxul ñeneen bastatan ci kàttan yàlla jox leen ngeen am ay taxawaay ak doole joo xamante ne benn xeetu doomu aadama amu ko nee nañu ñoom daanañu njool mu mufassir bi nee na jalaal nee na mi atu zira téeméeri xasab téeméeri xasab nit daana ko guddee ca ñoom téeméeri xasab moom gu bëri na waaw kanjo ku njool ci ñoom téeméeri xasab la waaye boo dee seet ndaama ca ñoom day am juróom benn fukki xasab waaye nag kàttanu yàlla ci bind mën na loolu ma ngi leen di wax ne kon bàyyi leen xel li leen yàlla defal wa zaadekum fil xalqi basma faskuru fàttaliku leen ala allahi xéewali yàlla yi ala allahi xéewali yàlla yi mufrad nag moom dafa bari ay mufrad mufradam dafa bari ay tëggin nag hmm. laallakum ndax leen yeen na ngeen mën a texe qaalu ñu ne ko ajjitanaa ñun de waaru nañu ñun de waaru nañu ajjitanaa moo ñun de yéemu nañu ndax dañuy dikkal li na abu da ngir ñu wéetal allah yàlla wax dafa moom dong dong képp kottu wa nazara ñu wàcc bàyyi maa la nga xamante ne kana nekkoon na yaabudu daan ko jaamu aba una sunuy bàyyi ak sunuy maam yow nit nga te kat ñoom dañuy jékki-jékki rek gis benn xërëm ngelaw lu bari jaar fa rek rotal bopp ba ah ñu jël ko yóbbu ca tëgg ba bu dee weñ la mu suudeel leen ko ànd ak loolu lépp ñu xam ne lii mënulul boppam dara waaye comme nee nañ suñ bàyyi ak suñu maam moom la dafa moom la moom la fi bàyyi woon ñun daal duñ ko dindi ah ñu ne ko nag léegi nag lañ ñu bëgg a bàyyiloo mënuñu kaa baax bu fekkee nag li ngay wax ne ab yonent dëgg la nga ñuy tëkku léegi li ñu tëkkoon a ñëw faatina andil ñu bi maa ci la nga xamante ne taidunaa yaa ngi ñu koy tëkku ci mbugal ndax sonn nañu nag in kunta nekk nga mina saadiqin di bokk way dëgg bu fekkee waxkat dëgg nga léegi nag na mbir mi wàcc yàggul de yàggul de qaala mu ne leen qad waqaa jeex na am na wa siixatul maadi bi ma lam yaqaa qattu taxqiqun li ma sa yaqaa ataa amrullahi fala tastaajiluhu inna aataynaaka al kawsar lu bàyyi ko fa yàlla ah, yàlla moom amul eh, passé ak futur lépp présent la ci moom xad waqaa mbir mi yey na sotti na xad waqaa dëgg yey na aleykum ci yéen rëjisun mbugal min rabbikum bu tukkee seen boroom wa xadabun ak sànja merum yàlla wàcc na ci yéen ba pare atujaadilu ne nii ndax dangeen di dagg seen teg man fii asmaa in ci ay tur yooyu xamante ne sammaytumuha yéen a ko tuddee antum yéen ñii wa abaakum ak seeni baay nga xam ne maa nazala wàccewul allahu bur yàlla biha ci jaamu ko min sultaanin wennu lay dañoo am na ñu tuddee al asmaa ak musammayaat li kulli li kulli ismin musamma tur bu ne am na boroom tur wala det tur bu ne am na boroom boroom tur waaye nee na leen nag yéen yii ngeen di jaamu ay tur la yu amul boroom tur ndax ki ngeen di wooteel ki ngeen di wax laata la bis bu ñu dindee xërëm bi ana laata tur waa ngi fi des est-ce que am na boroom amul boroom tur ki ngeen di wootee Uzza bu fi jógee ñu dindi xëram woowu ana kon tur la wu amul borom kon ay asmaa la yu amul musammayaat yoo xam ne yéen a jékki-jékki këréyal ko xëram yi waaye du dara bu fi xëram yi jógee ay tur rek a fi des ila asmaan sammaytumuha antum wa abaaukum maa nazzala allahu biha min sultaan kon nag fantaziru xaaru leen mbugal mi inni naka man wér na ni maakum mun muntazirun aji xaaru laa maakum ànd ak yéen minal muntazirina bokk ci way xaaruñu loolee wedd gi ngeen ma weddi mbugal mi day ñëw yàlla wàccee ca ñoom arriixul aqim leen ba mbugal ma ñëwee sun borom ne na fa anjaynaahu musal nañu yoon yont yàlla xuut wallazina ak ña nga xamante ne ma maahu àndoon nañu ak moom ci way gëm ña bi rahmatin ci yërman ma yërmande min naa bu tukkee ci ñun waaye ña nga xamante ne ñoo weddi woon wa qataana daabira alladina kafaru alladina kazabu bi ayatina wa qataana dog nañu daabira alladina gannaaw gaa ña nga xamante ne kazaba weddi woon nañu bi ayat naa sama kéemaan yooyee tegti la sama kenn ak sama kàttan mooy dara desul ci ñoom ba seen gannaaw dara desu fa mooy ba ca njaboot gaag ba ca si lépp laa faagaagal waqataanaa daabira lazina kazabu ayatina lu ñu tudd al istisaal moom laa leen def wa maa kaanu nekkuñu woon muminina di way gëm kazabu wa maa kaanu muminina falaatif kon nag tudd na ñaari yonent tudd na yoon yonent yàlla noox tudd na yoon yonent yàlla huut mu ngi bëgg a tudd indi beneen yonent bu ñu naan saalix mu yebaloon ko ci génn giir bu ñu naan samuud moo tax mu ne waa yebal nañu ilaa samuud ci giirug samuud axaahum seen mbokk saalixan ndaw lu ñu tuddee saalix xaala mu ni leen yaa qawmi yéen sama mbooloo ubudu wéetal leen allaha buur yàlla ndax maa lakum de di leen min ilahin benn buur bu yeyoog njaamu ñu koy jaamu ci dëgg jaamu ko am njariñ ñàkk jaamu ko di andi lor xayruhu kudul moom xa jaat ku dëgg di këlët na leen bayinatun aw lay wu leer naññ di kéemaan min rabbikum tukkee ci seen boroom buy wane ak sama dëggu ñoo ko sàkk woon ci moom di ndax dañ ko ni lii tax ñu mën la gëm mooy indil ñu benn kéemaan te kéemaan bi nga xamante ni moom ngay indi ñun ñoo koy sàkkul suñ bopp moo di ñun giléem lañu bëgg nga indi ko te giléem gi na ëmb na bu ñëwee rekk na na wësin na ëmb ci saasi wësin ci saasi te giléem gi na na bàyyi ko ci xeer bi montagne bi loolee am loolee am waaye nag comme ci kemaan la ñëwee lekkam day nekk kéemaan naanam day nekk kemaan ndax la seen giléem yi dëkk yépp war a naan moom la giléem gi naan te buy fori itam daanaka lañ war a lekk lépp lay lekk te gil yeneen giléem yi ñeme ko ndax rëyaay ba na mu toll waaye nag loolu dem ba déranger leen am lu ñu def waaye yàlla itam am lu mu def moo tax buur bi nee na xaala mun leen yaa qawm yéen sama mbooloo ubudu wéetal leen allah buur yàlla malakum déddi ñee leen min ilahin benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg xayruhu ku dul moom xajaatkum dëgg dikkal na leen ba bayinatun aw lay wu leer naññi kéemaan buy tegtale min rabbikum tukkee seen borom buy tegtale sama dëggu ndax haasihi lii de naaqatullahi gileemuk yàlla la kenn du ko askanale ku dul yàlla waaw aayatan mu di kéemaan lakum ñeel leen aayatan mu di kéemaan lakum ñeel leen kon rek waay fa zaruha bàyyi leen ko taakul mu lekk fii ardillaahi ci suufu yàlla gileemu yàlla kay sañ naa lekk ci suufas yàlla naaqatullahi wala tamassuha rekk bu leen ko jegeele bu leen ko jegeele bi suu in ci loraange mooy bu leen ko dóor bu leen ko rey a ah, cay bu ngeen ko defee ndax bu ngeen ko defee kat fa yaaxuzakum dana wàcce ci yéen dana wàcc ci yéen azabun mbugal alimun gu metti metti fa yaaxuzakum dana mbugal leen moom yàlla dana mbugal leen azabun mbugal alimun gu ñu mettital ma ngi leen di wax ne waskuru fàttaliku leen is ba nga xamante ne jaalakum def na leen moom yàlla xulafaa al ngeen di ay kilifa ay kuutaay ci suuf min baadi aadin gannaaw giirug aad moom yàlla wa bawwa ak mu dëkkal leen fil ard ci suuf tattaxizuna ngeen di wut xusuuraan ay njënji min suhuliha ci suufi beeñam yu tàlliya ci jamonoy mbooya wa tanxitoona ngeen di yatt buyuutan ay néeg minal jib ci al jibaala ca tukkee ca montagne yi jamonoy sedd ngeen fay dëkk faskuru rikk fàttaliku leen ala allah yi xéewali yàlla yi iwaay wala taasaw bu leen di dox kaw xaala kawnikum mufsidina ngeen di way yàq fil ard ci suuf al aswu day firi yàq al fasaad ba tey moom la xaala daal di ko wax almala u mbooloo ma allazi ña nga ña nga xamante ne mooy notable ya na ña nga xamante ne istakbaru sàkku nañoo rëylu min qawmihi ci nitam mooy jombale seen bopp gëm ñan la ñuy waxal waxu ñoo moom de ñan la ñuy waxal mooy dañoo seet ndax ab yonent su wootee ña néew doole ñoo koy njëkk a wuyu kilifa yi duñ ko wuyu ndax ñoom kat eh, intérêt ak njariñ ak la ñuy dundee te sulta zamaniya ba nga xamante ne moom la yore loolu mooy waral loolu kon nag kilifa yaak surga yaay waxtaan kilifa ya ñoo laaj surga ya ne leen waay yéen ndax gëm ngeen waa ji xaala wax na almalaw notabale allazina ña nga xam ne istakbaru min qawmi ca nitam ña ñan la ñuy waxal li na ñeel gaa ña nga xamante ne ustudifu sàkkoo nañ leen a néewal doole doyadal leen ca xeet wa ca societé ba li ma ñeel ña nga xamante ne muy badal dafa badal nekk badal bu baamu xarfu jarba mooy ñan li ma ñeel ña nga xamante ne amana gëm na min minhum tukkee ce ñoom ne leen ataalamuna moo ndax xam ngeen ni ndax yéen da ngeen a xam ni an na saalihan naka saalih mi mursalun ku ñu yónni la min rabbi tukkee ci bus boromam ndax ku ñu yónni la ndax yéen jàpp ngeen ni dañ kaa yónni ci yéen xaalu ñu tontu leen ne leen waaw waaw ndax innaa naka ñun kay wallahi muminuna way gëm lañu bi maa ursila bihi li ñu ko yónni xaala daal di wax allazina yaa nga xamante ne istakbaru sàkk nañu rëy lu jombale seen bopp gëm waxuñu leen yéen gëmuñu saalix de mais dañ leen wax ne inna naka ñun kay kaafiruuna way weddi lañu billazi ci laala la nga xamante ne yéen de amantum gëm ngeen bii ci moom li ngeen gëm ñun weddi nañu gëmuñu ko léegi nag ña ngi ca problème mu gileem ga ndax gileem ga moom lakkal na leen ca dëkk ba mujj ñu ni léegi giléem gi day naan bisam benn bis waa dëkk bi mën na wëgg seeni jur ak root benn bis giléem gi moom bisam mënu bokk ak lenn wax nañ ci wax yu bëree bari nag ndax nee nañu bu daan naan lami naan dana tollook li seen jur yépp war a naan ci bis bi waaye bu ngoon jotee dafay nekk meew boo xam ne dañ ca rat ñoom ñépp dañ ca naan ma ngi leen di lor fee waaye mi ngi leen di jariñ fii au lieu ñu doyloo loolu ñu daal dem ba mu yàgg rekk ñu ni daal kuñ naan Salif ibnu Quddaar wax nañu ni as ndaw moo ko ko sant moo ne ko giléem bi moom la jël na ma ci dëkk bi bu fekkee ni li ngay wut sàkku ci man dëgg la ci yow feeñalal sag njàmbaar ci rey giléem gi waaye itam waa dëkk ba ànd ak moom ca loola naaqatallaahi wa suqyaaha fa kazabuuhu fa aqaruha mu gàtt fa damdama alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaaha falaa yaxaafu walaa yaxaafu uqbaaha mu dem loj ko mu dem loj ko moo tax alquran ne fa aqaru ñu daal di loj an naagat naaqata gile naaga daar def loolu ci seen ndigal ñoom ñépp ñu ànd ci wa ataw ñu fettiirlu an amri rabbihim walaf jëm fi jëfandikoo seen ndigalal boroom te moo di bañoon ko rey al àqru loj loj giléem dañ koy loj di su ko rendi suñ borom ne mënoon nañoo yem ci yooyu waaye def nañu ba pare ñëw défier saalix ne ko saalix nag ñun weddi nañu la te giléem gi nga doon wax naan ku ko rey mbugal ñëw ci yow rey nañu ko ba séddoo nañu yàpp yi ba lekk nañu ko yaa saalix itinaa dikkalet ñu bi ma taiduna la ñu doon tëkkoo ci mbugal nee woon nga buñ ko reyee mu ñëw in kunta nekk nga mursalan min al mursalina bu dee ndawal yàlla rekk nga ah na mbir mi ñëw yaakaar naa ba mu ñëwee de ñaar la yàlla boole ñetti fan tremblement de terre ànd ak xaaju jibril ca kaw mu tax bi nee na fa axasatum alak leen ar rajfatu yëngutug suuf fa asbahu ñu xëy ñoom ñépp mujj jaasamiina di way boof fii daarihim ak fii diyaarihim ca yeneen jàng yeneen place ya fii daarihim ca seen réew ma seen dëkk ba fatawalla daal di wangee ñu dëddu wan leen gannaaw anhum bàyyi leen fa saali moom saalix wa qaala mu yaa qawmi ewaay yéen sama mbooloo man de booba fekk na alku nañ ba pare ma ngay wax ñoom de naan leen laqad ablaghtukum wallaay teg dëgg jottali woon naa leen risaalata rabbi sama yónnentug boroom ewa man de wa nasaxtu laa biire woon naa lakum ñii leen walakin wante yéen de laa tuhibbuuna yéen a bëggul woon yéen a bëggul woon annaasixiina way laa biire ña ngi leen di wax yedd dafa tolloog ñu ni waaw ki faatu moom ñoo ñu faatu wax ji lañ lay jariñ ci ñoom ñu ne ah dañu dégg ndax daloon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog badar fa tabarakallahu ko jàng dañu ko jàng ci kanam saar yi ci kanam ba nga xamante ne juróom-ñaar fukk yooyu faatu dugal nañ leen ca leeñ ma yonent bi sallallahu alayhi wa wax ak ñoom ni leen ñun de li ñu yàlla digoon tege na suñu loxo seydna amar ibnu xataab radiallahu anhu daldi laaj yonent bi ne ko naka ngay waxee aw nit ñoo xamante ni faatu nañu ba commencé yàqu yonent bi sallallahu alayhi ne ko sama kàddu gi may wax ak ñoom gënoo leen ko dégg daa tolloog ni yow man nga ma wuyu waaye ñoom mënuñu ma wuyu waaye dégg gi moom yéen ñaari tiyam kepp ñu ni déedéet kay wa qaala yaa qawmi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasaxtu lakum walakin laa tuxibuna nasihin wax ji amul gannaaw bi ñu faatoo ba pare mooy ñoom bi ñu commencé gis màndarga yi wane ni mbugal ma mi ngi wàcc seen kaw boobu lay génn wax leen kàddoom yii ne leen ah man sama responsabilité jeex na man de laqad ablagtukum jottali woon naa leen risalata rabbi sama message yu boroom wa nasaxtu laa biira woon naan la ñeen leen waaye yéen ñii kat alkande gi xam ngeen ni commencé na ñëw te dina àgg walakin yénte laa tuhibbuna naasixina yéen a bëggul woon way laa biira ñi page am jeex yonent bi yàlla mi ngi koy nettaliwaat beneen yonent ci yonent yi la ñu dajoon ci seenu xeet ak la wàccoon ci seenu xeet mu ni waa tuddal yaa rasulallah luutan yonent bu naan luut is ba nga xamante ne xaala ma ngay wax li qawmihi ñel nitam ña tey jii de indiwul axaahum ndax lan daa koo ci seenu mbokk ndax bàyyi leen xel ne yont yàlla luut ak yont yàlla ibrahim bañ bàyyi ko fa ñu nekkoon gannaaw bañ leen fay lor xatal leen fa bundu xatal leen ca yoon wa dafa ne woon yoon ci yàlla luut demal dëkk boobu ñu naan sa duum ndax ndax dëkk la bu doy waar ndax ñoom kat dafa am lu ñu nekkee la ñu nekkee mooy loolu ñuy wax ñaari tur yoon ci luut nekk fa nag looloo waral bokkul ca xeet wa du seenu mbokk moo tax li qawmihi rek déggal alquran is ba nga xamante ne qaal li qawmihi na ndax da di dikk dikkalaat di def da ngeen di jëf alfaaxishata ñaawteef boo xamante ne maa sabaqakum jiituwu leen biha ca ñaawteef boobee min ahadin kenn kenn kenn min bu duggee ci siyaaqu naf yi yu fiit al istigraq benn doomu aadama du benn lenn moo xam jinne la moo xam doomu aadama la moo xam dara lu ko lu leen ci jiitu def loo xam ne bàyyi ma sax du ko def minal aalamina ci mbindeef ni a innakum moo ndax yéen la taatuuna da ngeen di dikkaleet ar rijaala góor ñi shahwatan ci wàllu bànneex min ni saa i bàyyi fi jigéen ñi bu dee ci góor xanaa wutuñu fa lenn lu dul bànneex rek ndax jigéen sax moom bànneex ba ànd naag amal la njaboot bal liy dëgg tey dëgg antum yéen xaw mun aw nit ngeen musrifuna wu ëppal yéen jéggi ngeen dayoo de ndax ëppal fa la yem sun borom nee na waaye wa maa kaana nekkul jawaaba qawmihi tontu nitam ña illa an qaalu lu dul ñu ni ko bàyyiwuñu de wala nangam ak nangam xam nga lu ñu waxa bañ waxtaane seen biir ne dégg ngeen waa ji nga xamante ne daf ñoo bëgg a bàyyi loolu li ñu nekk ñu ne waaw ah yéen a ko ci bàyyi rek na génn dëkk bi génnee leen ko dëkk bi comme day jéem a set setlu di laab laab di wane ne moom du ci dugg mooy na fi génn axraju hum génnee leen luut ak ñi ko gëm ñi ko topp min qaryatikum ci seen dëkk bi ndax innahum naka ñoom sikk bi ñu nekkee moo di unaasun aw nit lañu ñoo xamante ni yatataharuna dañuy jéem a laab laablu ak di set setlu ak di silvisé silvisé lu ne ñoom duñ bokk ci mbir yi loolu sikk la loolu kay du sikk ah sun borom nee na ba mettee nag mu tëkku leen mbugal ma ñëw ma musal ko moo tax fa anjaynaahu musal nañu ko wa ahlahu ak ñoñam ñépp mu ne illam raatahu ndere soxnaam soxnaam de soxna si yonent soxna si yonent kaanat mujj na nekk minal gaabirina bokk ca way des ña ca mbugal ma sun borom nee na wa amtar naa taw nañu aleyhim ci ñoom mataran ab taw tawuk alkande fanzur settantalal xool yaa rasulallah kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mujrimina mujjantalu way jombale seen bopp gëm ña gëm ña nga xamante ne nanguwuñoo gëm kooku moom it ca yonent yàlla bokk pagem jàll ñu ngi koy indil beneen yonent buñ naan yonent yàlla Shuayb yonent yàlla Shuayb moom feebaru waa dëkkam ndax yonent bu yàlla yónni rek mooy xeet woowu dafa am feebar bu nekk ci ñoom feebar boobu boo xamante ni dëppoowul ak li yàlla bëgg ci ñoom yonent boobu ñëw di leen faj ca loola ñii xam ngeen lan moo nekkoon seen feebar moo di dañoo jubadi woon ci wàllu njënd ak jaay lu jëm ci wàllu peese moo tax mu ne wa yebal nañu ilaa madyana ci dëkk bu naan madyan madyan nag doom la woon ci ibrahim ñu nekk aw giir ñu tuddee ko seen maam axaahum seen mbokk ban yonent bu naan Shuayb qaala mu ne yaa qawmi yéen sama mbooloo ubudu wéetal leen allah bur yàlla ndax maa lakum de di ñeel leen min ilahin benn buur bu ñu jaamu ci dëgg jaamu ga am njariñ ñàkk jaamu ga di jañ lor xayruhu ku yàlla xad jaatkum dëgg dikkal na leen bayinatun aw lay wu leer naññ muy mujiza min rabbikum tukkee seen borom buy feeñal sama dëggu ne mooma yónni fa aw fu matal leen alkayla natt gi wal mizaana ak peese bu ngeen dee natt na mat sëkk wala tabaxasu naas ashyaahum wala tabaxasu bu leen di wàññi di pertal annaas nit ñi ashyaahum seen yëf yi fu kilo war a nekk nga wàññi ca garam bu fekkee da ngay peeseel sa bopp mu ëpp waaye booy peesee pour jënd mi ngi noonu bu fekkee saaku gerte yi la nga wut tuuti suuf def ci wala ay quelque xeer pour mu ba diis mu diis tuuti fa tabaarakallaahu pour ak ngay bàyyi xel abattement bi ah su ko defee rek fa aful kayla wal mizaana fa aful kayla wal mizaana loolu rek yàlla yónni na ci yonent ci pare problème rek pour mu régler problème peese moo xam balance bu ndaw bi la bi nekk ci boutique bi la yaa xam la mu làmbool ndax yaa ko ca def walla dafa dikkaale ci yow moo xam peese yu yu yu yu yuy jël ay bërigo ki ton la ak loo ca mën a def xamal ne loolee lu dangereux la waylun lil mutafifiina alladina ida ktaalu ala annaasi yastawfuun wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun mat na bàyyi xel buur bi nee na mu ni leen fa awful kayla wal miizaana wala tabxasu naasa ashyaahum wala tufsidu bu leen yàq fi l ardi ci suuf bil kufri wal maasi baada islahiha bi baat bi baati rusul zalikum loolee ñu tudd xayrun moo gën lakum ñeen leen in kuntum njeem nekk ngeen muminin di way gëm in kuntum muridil imaan bu ngeen nammee gëm bàyyi leen loola gaaw leen nag wala taqudu bàyyi leen toog di dogaale bi kulli siraatin ci bépp yoon tuuiduuna ngeen di ragalloo nit ñi di leen xupp di jël seen yëf wa tasudduuna ngeen di wëlbati nit ñi di leen dëdduloo an sabilillahi walif diine yàlla ji waaw man koo xamante ne amana gëm ne bihi yàlla ngeen di ko tëkku ak di jéem a seet nu ngeen ko orienté ba mu bàyyi li mu nekk wa tabguunaha damiru haaji nag ma ngay dellu ca sabil ndax sabil dañ koy góoral di ko jigéenal wa tabuxunaha ngeen sàkk yoon woowee iwajan muy lu dëng képp ku tege ci yoon woowu nga ne ko yow de te nekk ko ci yoonu njub ndax boo nekkoon ci yoonu njub doo mel nii nga mel wazkuru fàttaliku leen is ba nga xamante ni kuntum nekkoon ngeen xalilan di lim bu néew moom yàlla fa kasara ko mu bari leen xam ngeen benn giir la mu ngi bàyyi ko ci Madiyan mu dem ba yàgg mu nekk giir gu yaatoo yaatu fa tabaarakallaahu yàlla jox leen ñu bari aw nit ba pare bari alal sun borom ne bàyyi leen bu jaarle ko ci làmmiñu Shuaybu mu leen di waar ni leen war ngeen a sant yàlla bàyyi leen loolee xel loole nga xamante ne moom leen leen yàlla defal fa kasara ko wanzuru xool leen xooluk waaru kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mufsidina mujjantalu way yàq ña ndax ñoom yàggul ci ñoom giiruk aat xam nañ la xewoon foofa sun borom ne mu ne wa in kaana njeem nekk na taifatun ab kuréel minkum tukkee ci yéen amanu ñu gëm bi lesi ci la nga xamante ni ne ursiltu yónneef na bi ci loolu mooy yoon Shuayb moo leen di wax ne bu ngeen amee kuréel bu gëm lañ ma yónni wa taifatun ak kuréel boo xam ne lam yuminu nangu ñoo gëm fas fasbiru muñ leen yéen ñëpp bokk leen ko yéen ñi nga xamante ne gëm nañ ñi ma gëm mooy nañu muñ nattu yi wàcc ci ñoom ak loraange yi xam ni xéewal dina ñëw waaye ñi nga xamante ne gëmuñu ma nañu muñ muñu xaaru mbugal ma ñëw ci ñoom fasbiru xataa yaxkuma ba àtte allahu bur yàlla bay na naa sunu diggante te moo di musal ñi nekk ci dëgg alak ñi nekk ci neen wa huwa moom yàlla xayrul xaakimina mooy ngënje way atte yi xaala daal wax almala u mbooloo ma allazina ya nga xamante ni istakbaru sàkko nañoo rëy lu jombale seen bopp gëm min xaw mi ci nitam ña ne koy xam nga lu xewa la nuxrijan naka giñ nañu daañu la génnee yaa Shuaybu yow Shuaybu wallazina ak gaañ a nga xamante ne amanu gëm nañu ma ak ànd ak yow min qaryatina ci suñu dëkk bii benn daañu la génnee dëkk bi aw la taudunna wala ngeen dellu bu fekkee dellu lañu wax day mel ne kon Shuaybu dafa nekkoon ca seen diine ja déedéet ñu ne waaw xanaa ñu def ko taxlib ñamu àndal da caa am ñu nekkoon ca seen diine ja kon aw la taudunna wala ngeen dellu si fi millatina ci sunu diine ji ñu nekk wala boog baatu aada bi al awd bi nekk as sayruura aw la taudan aw la taudunna wala ngeen dem ba mujj nekk fii millatina ci suñu diine ji qaala yonte yàlla Shuayb bu ne leen ah waalaw waxoon naa la istifham bu ñëwee waaw at fu topp ca xamal ne am na lu ñu xasaf seen diggante ah ndax dañuy nekk ci seen diine ji walaw kun naa doonte nekk nañu kaarihiina di way bañ ko istifham inkaari la kon nag yufid ad nafi ah bu duggee ci seen diine jii de ah kon de xadif tarey dëgg fortul nañu fental nañu alallahi waral yàlla kasiban aw nar in udna nge mujj nañu nekk fii millatikum seen diine ji baada gan gannaaw ba nga xamante ne musal nañu ba ñu musalee allahu bur yàlla min ha ci seen diine jooju wa maa yakunu yellul xel sax nanguwul lanaa di ñeel ñu na nauuda bu ñu mujjee nekk fii ca diina jooje xanaa illa an yasha allah machiatullahi dal la kenn xamul fu noo koy def waaye bu dee suñu sagoo rek mooy duñ ca mën a nekk mbokk yi kon loolu dafay wane ni rek nit du naagu nit du naagu loo nekk rek dangay ñaan yàlla sax ci lu baax di ñaan yàlla rek saxal la ca ah di ñaan yàlla saxal la ca rek ndegam yonent mooy ah xanaa coobare rek yàlla mu mu bàyyee ñoo sunu bopp ndax yàlla bu la bàyyeeg sa bopp rek nga al ko wasia rabbuna kulla shay'in ilman wasia ndar képp na rabbuna sunu borom kulla shay'in lépp lëf ilman ci xam yaani wasia ilmuhu kulla shay'in lépp lu manti doon moom yàlla peeg na ko ci xam ba tax na alallahi ci yàlla rek tawakkal naa lañuy ñuy wakkilu sukkandiku rabbana yaa rabbana yow suñu borom iftax yàlla nga àtte bay na naa sunu diggante wa bay na xaw mi naa suñu digganteeg nit ñi bil xaq ci dëgg wa ante yow yàlla xayrul xaakimina yaay ngeen ji way àtte ñi waqaal daal di wax almalaw mbooloo ma allazina nga xamante ne kafaro weddi nañu yàlla min xaw mi ci nitam ña lenn la di wax ñenn ña ne leen hey gis ngeen giñ na la in laam ji laamu xasam la in ji charte la giñ nañu ne njéem ittabaatum topp ngeen shuayban ay innakum wér na ke ni yéen bu boobaa isan konte la xaasiruna way perte ngeen loolu la ñu sun borom nee na axasatuhum ba alkana ga dikkee alak na leen na leen nuus ci alkande ak rajfatu ak rëng-rëngi suuf tremblement de terre rek moo ñëw fa asbahu ñu mujj ñoom it jaasi bi di way bóof fii daarihim ci seen kër seen kër yi allazina ña nga xamante ne kazzabo ñoo weddi woon Shuayban yoon ci Yàlla Shuayb nga ne ha sun boroom nekk an lam fii fiiha dafa mel ne mosuñoo dëkkee kër yooyu kàllam yar naw dafa mel na mosuñoo sax fiihaa ca kër yooyee allazina ña nga xamante ne kazaboo ñoo weddi woon Shuayban yoon ci yàlla Shuaybu kaanoo nekkoon nañu hum ñoom alxaasireen di way perte taakila bi iadati lmawsuli wa gayrihi li raddi alayhim fa tawallaa mu daal di dëdd moom yoon ci yàlla Shuaybu anum walif leen wa qaala mu ne yaa qawmi yéen sama mbooloo man daal laqad ablaxtukum walaay cag dëgg jotaloon naa leen risalati rabbi samay yonneenti boroom wa saxtu laa biire woon na lakum ñee leen ngeen lànk bañ a gëm man nag fa kay fa aasa naka laay mën a jàqe naka laay mën a amee problème naka laay mën a toogee di xalaat di stressé wu alaa qawmin ci nit ñoo xamante ne kéefiri na way weddi la ñu waaye istifham la bi maanaan nafi kon kay man duma ci duma ci jàq suñ borom ne wa ma arsalnaa mosuñoo yónni fii qaryatin cib dëkk min nabiin benn yonent ñu weddi yonent boobee illaa axas naa ndare bu mbugal nañu ahlaha ñooñu dëkk boobee neen leen nuus ci mbugal bil basa yi ci taruk ñàkk al basa mooy musiba buy laal sa alal wa darra mooy natt buy laal saw yaram ñu jékki-jékki gis jur gi faatu alal ji di wàññeeku fa tabaarakallaahu koom-koom bi di néew lépp bëgg rekk ñu xalaat ne xam ni ci seen sabab la <coughs> mën a dellusi si daraa feebar war la allahum ndax lee ñoom rek yet dara una ñu mën a toroxlu ba mën a gëm suñ borom nee na suñ demee ba mu yàgg suma ma baddal naa topp ñu wattee alxasanata ñàkk ga ñu indi koom feebar ba ñu indi ak wér makana ati ca barabu mbugal ba summa baddal naa topp ñu wottee alxasanata ak koom makana sayyiati ca barabu wàll euh, barabu ñàkk ba alxasanata wér makana sayyiati ca bara bu ga xataa afaw ñu koom-koom am wér gi yaram am ba lépp bëri xataa afaw ba ñu bërile waqaalu teg ca ñuy wax weddi xéewalu yàlla naan ah li ñu daloon de daana dal sunuy baay ak sunu maam xad masa dëgg daana laal aba ana sunuy baay addara ak loraange wasara u ak ak ah comme niñ ñu laalee xéewal ñi xéewal gi ñëw na démb loraange la woon lii daal daana am wahum fa axasnaahum ñu alak leen baxtatan ci mbetti nga wahum ñoom laa yashuruna yéguñu dara ca waxtu dikk mbugal ma sun borom ne walaw ann ahlal qura doonte woon ñooñu njënj yi ñooñu dëkk yi weddi woon seeni yonent cey bu fekkoon ne amanoo gëmoon nañu billaahi yàlla wa rusulim ak yonent ya doonte gëmoon nañu yàlla ak yonent ya wa taxaw ñu wattandiku ak kéeféer ak mooy kon la fa tax naa daañu ubbil alayhim ci ñoom barakaatin ay barke mina sama yu bàyyi ko asamaan mooy taw day wàcc fa tabaarakallaahu maral du am wal ardi suuf gàncax bekkoor du am walakin wante kazzabo ñoo weddi yonent ya fa axasnahum ñu mbugal leen bi maa ca sababu la nga xamante ne kaanoo nekkoon a njex si bunde ko fàggu ci ay bàkkaar afa amina ahlul qura ndax day dal xel ndax du tiit ndax du jàq ndax day nekk ci tranquillité ahlul qura ñu dëkk yooyu weddi seen yonent and yaatiyam bu dikkalat leen ba naa sun mbugal ñun yàlla ba yaatan jamono yu guddi fekk leen wa mbir moom ñoom naa imu na ñuy way nelaw awa awa amina ndax day dal xel ndax du ragal awa amina ndax du tiit ahlul ñoo ñu dëkk yooyu nga xamante ne ñoo ngi weddi seen yonent an yaatiyam bu dikkalat leen ba naa sunu mbugal du xan digg bëccëg wa mbir moom ñoom yàlla abu na ñu nekk ca la leen neex di fo afa aminu ndax dañoo tiitul ndax dañuy dal xel makrallaahi ci istidrajuhu ci jayu yàlla xéewal googu nekk ci seeni loxo pouvoir yooyu nekk ci seen loxo kilifteef yooyu nekk ci seen loxo daraja yooyu nekk ci seen loxo ndax dañu duñu tiit dañuy dal xel ci loolee sun borom ne falaa yàman du dal xel du ñàkk a tiit ci jayug yàlla illal qawmu ndere nit ñi alxaasiru ñu nem ma perte ëllëg awalam yahdi lillazina yarisuna larda min baadi ahliha an law nashaau asabnahum bi zunubihim suñ borom nee na amoo ndax dañuy toog di bañ a xalaat walam yahdi gindiwul ndax dafa gindiwul na ñeel gaañ ña nga xamante ni yari suna ñoo donn al arda suuf dëkkee ko min baadi ahliha gannaaw ñu ko dëkkee woon kër goo xamante ne ka ko tabaxoon nekku fi réew moo xamante ne ña ko defaroon ba lépp sotti nekkuñu fa ah yow mi ñëw ci gannaaw ndax loolee amul lum la war a jox ci waar awalam yahdi lillazina yarisuna al-arda min baadi ahliha suñ borom ne ndax da leen a gindiwul ndax da leen a orienté wul an law an naka luy mbir tey mbir law nachaaw bu ñu sooboon asab naahum ñu jotal leen mbugal bi zunubim ci seen sababu bàkkaar comme ni ñu mbugalee woon ña ñu fa jëlee ba tax ñu mën ko doon wa nat baaw ndax dañuy dal xel ndax da leen gindiwul ñu kaste ñun yàlla ala qulubim seen xol ya fahum ba ñoom la yasmauna duñ dégg waar tilkal quraaq yooyu la dëkk yi ñu tudd tudd seeniw xeet tudd seeniw yonent tuddal la nañu doxale woon seeni ak seeni yonent ci gi weddi ak loraange tuddal la ni ñu leen alakee yow rasulallah yooyu la dëkk naqus ñoo koy nettali naqus ñoo ngi koy jàngalat alaka ci yow yaa rasulallah min anbaiha ci ay xebaaru ñoñam wala qad jaatum dëgg dikkaloot na leen rusulum seeni ndaw bil bayinaati ay la yu leer naññ comme li nga indil waa Quraysh waaye fa maakaanu nekk ñu woon lu yuminu di nangu gëm bi ma ca sabab la nga xamante ne kazzabu weddi nañu min qablu ceg njëkk la njëkk ñu ñëw sun borom nee na kazalika naka noonu yatba'u lay kaste allahu buur yàlla ala qulubil kaafirina ci xolu way weddi ñi wa maa wajat naa fekk ñu ak aksarim la gën a bëri ci ñoom min ahdin ñuy matal génn ko wóllëree ga nga xamante ne wóllërante woon nañ ko ak yàlla ca yawma alastu bi rabbikum wa an wajat naa wa an naka luy mbir tey mbir mu xafafa la mina saqila aha wajat naa fekk nañu ak aksarahum la gën a bëri ci ñoom la faasiqiina ñoo muy nekk ñoo xamante ne dañoo génn topp su ko defee wax na histoire yonte yàlla nuux ak u xeetam ak fa ak waa giiru aad ak fa ñu mujj andi yonte yàlla saalix ak giram di samut ak nañu ko weddee ak fa ñu mujj mu indi yonte yàlla luut ak gaayam ya ak nañu ko weddee ak fa ñu mujj mu indi yonte ak gaayam ya ak ko weddee ak la taxoon ñu yónni ko nañu waxanteeg moom ak fa ñu mujj lépp mu jox ko yonent bi salaa salaam mu nekk loo xamante ni lu koy dëfal la mu xam ni muy dundee ak ni mu nekkal xam ni lu yonent yooyu dajoon comme mooy seen sang kon war na doj daj lu ko gën a pur ak lu ko gën a na yonent yooyu muñee woon kon moom rasulullahi war na mën a muñ muñ gu gën a ëpp muñ googu ndax moom yàlla jegaleel na ko lu mu leen jegaleel wul yonent yooyu su ko defee nag beneen yonent lay bëgg a ñëw dana wax ci moom nag lu gudd gudd mu yonte yàlla Moussa mooy yonent bi yàlla ëpp lum tudd ci alquran su ko defee ñu yam foofu bu subaa jàmm incha allah ñu dugg ci histoire yonent yàlla Moussa boobu lépp loo xamante ne jaar na ci yoon yàlla na yàlla boole ñu ko nangul yoolal ñu ko diisaleeg suñuy misaanu xasanaat lépp lu ci rocc ay rëcc-rëcc ngir fa tabarakallahu doye dig doomu aadama ak ñàkk xam yàlla yàlla boole ñu ko jéggal subhaanaka laa ilma illa